affaire euh, ci ci wareef ak ci mami waxati nag wax ju ñu mën dégg li nga rouge noir nag maa mos a wax wax ju ñu mën dégg ay wax dégg ngay wax ay wax yi fàtt na waaw asalaamaaleykum nuyuwaat waa Sénégal <laughs> asalaamaaleykum leen wax ne tey moom moom day bis bu rëy ci man day bis bu mag ci man di bisu sama rakku xol mm-hmm. yow li yaay déggeen doon wax ci ñun rek naan ñaar ñi dañu bëggante ba duñu xoolante loolu mooy dëgg. Pape Cheikh dafay kenn ci man jay na ba. Pape Cheikh mën naa ne xëy na TFM boolewuñu. mais dama ñëw TFM Pape Cheikh ñëpp jàpp nañ ne ñoom la ruus. mais man Fatou géwél am naa fitu lu Pape Cheikh def su ma neexulee ma ne ko allo su ma ko nee allo ma lu ma defati. ndax loolu moo ma ko may ci boppam. xëy na nag nit bu mën a tooñ laa mais moom yàlla moo def man maa ko bëggal sama bopp. te moom moo ma bëggal boppam Pape lu ma dal dafay jooy. lu ma naqari daf koy naqari te noonu la yaada ba jaxate mel ci man noonu la papa Mbay Jàllo mel ci man mm-hmm. Pape dundal dundal dundal ba énervé loo dund doyul man dama ne la dundal ba énervé mooy dund ba naan yàlla loo ma fi bàyyee yàlla na nga sut nen son Mandela aw fan te ëpp ko ay jaloore comme suñu <laughs> ne man dama la bëgg loolu yàlla moo ko dogal papa itam nee na loo dund doyul waaye askanu yaaba xarimaam yépp nee nañ <laughs> ñoom dañu jàpp ne ci ñoom nga bokk kon loo dund doyul pap dundal ba say may di baawa amin amin mami yow moom suñu mag bu baax nga donc suñu beneen frère boo xamante ne dafa préparé revue de presse mm-hmm. euh, jagleel ko bis bi Mouhamed Mouhamed Ndiaye. sama <laughs> rouge noir tey.